sababu gaybati anna allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuuna shaafi'an li qawmi wa an akuuna xaadiman fi dawmi 10 août 1895 na téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ba fi Sëriñ Tuubaa bàyyeekoo ci Mbàkke Baari dem liggéeyal ji boroomam muy ndorteel yoonu géej gi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci fàttali bis bi nga xam ne yoonu murit du ko fàtte benn yoon. ci fàttali nag Serigne Touba bi mu gisee ak bi sallallahu alayhi ci jàkkay Daaru Xuddoos ji fii ci Touba tem jaayante ak moom sàkkoo bokk ci waa ahlul badrin loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon ko ni ko lu métti métti lay doon ngir nga bokk ci ndax natt yu ñu lay teg ba ca gën a ndaw day faat bakkan Sëriñ Tuubaa tontu woon ko ne ko bakkan bi day sàkkuma ko ba xam la ma àttan ak la ma àttanul waaye li ma wér mooy lépp lu luñ ma teg su ko bakkan bi fekkee sama jom dékk ko. loolee nag yonent bi sallallahu alayhi xamal ko ne ko kon na nga génn bërëb bi nga xam ne moo di Tuubaa ndax aaral nañ la ko ba benn natt du la fekk. loolee di sababu bañ koritee rek la sëriñ bi bàyyeekoo fii ci Tuubaa dem ca Mbàkke Baari ci atum 1312 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Mbàkke Baari gi nag fi la génnee dem liggéeyal ji boromam muy ndorteel yoonu géej gi loolee mi ngi amoon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum 1313 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëppoo woon nag fukki fan ci weeru août ci atum 1895 ndax fii ci Mbàkke Baari fi lañ ko jaxasee ak nooni jamonoom muy nasaraan si bañ woolu woon ko sëriñ bi war a dem wuy ji loole nag sëriñ fàllu Mbacké mi nga xam ne mu nekkoon ñaareelu xalif général des am na lu mu ci leeral ndax lépp ci kanamam la xewee. nekkoon fii fi Touba gi nangami at fekk na booba nekk dem rek wéeti bu jàmm boroomam Jolof nag mu dem fa am na fa yenti weer la fa am képp. te laate diggam bi ñu jaxase ko ba ñu gis si ko fa. Hmm. fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw ni dem nga amul benn seen sabab. Hmm. lu may ja wax yi day jaxase kat rek di leen bi ñu ko jaxase woon ko ne ko. kee doo leen jëm si hmm. kaw yow rek moo tax ñi fi ñi ko jëkkoon defoon. fekk na moom dem rek dem rek la bëgg sama kanam loolu lépp na maa ngi teew daal mu fu mu jëm يقول لي حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبى ما ساق قلبي وعلى الجنبى لله قد وصلت عند القلوى kenn mënul wax yoonu murit te waxoo yoonu géej gi kenn mënul wax itam yoonu géej gi te waxuloo mbàkki baar yi kenn mënu ta wax itam fukki fan ak juróom-ñett ci safar te waxu mbàkki baar yi soxna Fatija radiyallahu taala anha doomu Seexul Xaddiim moo nettali te booba moom mi ngi fii toll ci ñaar fukki at nekk fekk ku ñuy wax soxna Faati Kan ni di taawu sëriñ Mor Jaara sëriñ bi yar leen fii bayloo leen ab toolu xaal fii ci gannaaw kër gi di leen di leen bindal di leen jàngal di dem di leen xool di leen xamal ne dama bëgg bu ëllëgee lu góor ñi am ngeen am ko soxna Fat ji moom moo nettali ne guddi gi nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom-ñaar bët set di fukk ak juróom-ñett nee na guddi googu Serigne Touba daf leen a fanaane berndeel fii ci Mbàkke Bari ci ay ñam ak waxtaane ñoom nee na nit ñu baax ñëpp xamal leen ne leen sama tukki bii may waaj kat bu leen ci am genn jaaxle ci lay tàqalee dëgg ak fen soxna si wax ne ba nga xamante ne toog na ci mbaar ma dama ko mën a mbaar mi fan la fi toll woon waaye comme yàlla too feexale nu ñu toog ci mbaar mi di ko waxtaane kon ñu barkeelu ca loola soxna si wax ne ba nga xamante ne toog nañ ba guddi gi sori nee na ñu gis sëriñ bi génne ci mbaar ma boot loxo dem ci penku jàkk nee na ab diir mu doxaat dellu siwaat ci biir kër gi nee na bi mu ñëwee nee na mu àndaat ak ñoom nee na ñu wax ne sëriñ bi nee na na ko ñëpp fekk jàkk ja nee na ba ñu génnee nee na mu tàggu toog ñoom xamal leen na leen maa ngi dem liggéey ñëw ngeen añ daal di wax moom soxna si ne keroog daf leen dénk yàlla ak yonent bi daal di leen bàyyee nag ak maam Cerno njaboot gi yëpp leen a door a war fas mu dem kon loolu li muy teg tegtale mooy dëkk bi doon na dëkk boo xamante ne bu sëñ Tuubaa fonk la ndax fi la ñëw la fi liggéey bi ci tàkkusaani ajjuma suba di gaaw muy dem fekk na dugg na ci xalwatu bi ba gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko lahoo xijaaban maani'an summa lahu xaalam cha tax chal xarar mu defal ko xijaab maania xijaab maania mooy loo xam ne dañ laa sarkale ci wet yëpp dara mënatul agsi ci yow bi muy génn fii ci kër gi woor na ko ne maanaam jinne mënatu koo lor seytaane mënatu ko lor mbindeef ku ko ci mën a lor mu ne muy dem ne kon sant naa yàlla mi nga xam ne moom aar na ma moom xamittu la wax de da booba demagut bu daan ba ca tukki bi du yéeme fii la génne na xamittu te sëñ Moussa Ka nee na ba mu amee juróomi weer fa baari di dugg xalwataaka naa ñaan lil bari saytaane dem ruuxale ko nosaa mi leen jaar lay fi jaar lay fexe fi sudaani kon xalwatoom yooyee ca la gisee suñu borom gisee ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wax ko li war a xew lépp boole ko ahlu badr ba nga xam ne ci yoon wi ahlu badr dañoo dañ ko fa dabe waaye lépp lu war a xew ci yoon wi dem ak dikk lépp ak lam ci war a amee lépp ak xam na ko moo tax mu génn daal di sant te demagul mu ne xamitu la wax sant naa ki nga xam ne aar na ma seytaane noppi na ci man Eh, jinne noppi na ci man mbindeef noppi na ci man loolu moo tax bi demee ci loxoy tubaab yi musuñ ko yàqal benn soxlaam ndax xam na ne mu mukallaf moo xam ne dangaa nekk ci biiri parental ñuy fo loolu amoo benn ci tànge ci ñoom moo tax sëñ bi noonu la meloon ak tubaab yi daa meloon nag koo xam ne tubaab yi ay parental lañ ci moom yoo xam ne dañoo toll ci fo moo tax yitteelu leen woon sax maanaam moom sëñ bi béywu na xel ci dara loolu nag li ci yéeme mooy sëriñ bi léeg-léegi day dem ci day dem ba toll ci barab nettali woon nag fii ci ci magal gi daaw day toll ci barab boo xam ne day am xat-xat yoo xam ne dana métti lool am na fa sëriñ bi wax ne xayru xuruju ruuxi lu dul faatu moom rek laa ne laa fa defut diggante yooyu nag suñu borom ginnaaw moom ginnaaw moom mayoon na ko ne ko yow doo fi des da koy bégal léegi-léegi da koy fàttaliwaat ne ko ahmadou la ma la la waxoon maa ci dafa am benn bis loolu la ko leeral mooy daa am benn bis maa mi sëñ Joral sëñ Mbacke kenn ni ndax sëñ Afia sëñ Mbàkke Kanni ak sëñ Ibra Binta doomi sëñ Cumbu leen dañoo ñëw ci Sëriñ Tuubaa booba sëñ baa ngi ci ci mi ngi jolof booba mooy ci yéen indi eh, sëñ Ibra daa indi ab kaamil sëriñ bi ne ko balaa ngaa dem wol sëñ Mbàkke Kanni mu bindal la xasida ak Jaalibatul Maraaxib ba mu koy bind ba agsi ci wa alihi wa sahbihi sumusi abaax yéen xamaa an rumusi mu sëriñ bi ne la ndax xam ngeen loolu mu ci jublu ñu ne ko xanaa mbàkk nga labiriñ bi sëriñ gis naa man xasida ga ma ci la gis naa ko sëñ bi daal jël xalima samp ko ca daaju xonq ay xubuurul mushrikiin dana leen ba ma nekkee ci tukki bi kat léeg-léeg damay toll ci xat-xat yoo xam ne sama borom daf may wax ne ma dana métti de waaye faw da nga yóbbaale sa bakkan jëm loolu moo tax bu may bind ba mu jàng ma ne yaa baax yéen xamaa ani rumoosi yow yàlla mi aji des nga xam ne moom faral nga ma ma faatu da ko na foo xam ne dane bi salawaat alxams wa ramadana yaa ma taral dem naa ba ñëw musuma faat benn waxtu yaa ma taral dem naa ba ñëw ak lu métti métti amul genn koor gu ma fàtt àll daan ne ko yaa ma ba foñ ma gasal bàmmeel ma mucc ca loolu nag loolu nag mooy garantie bi nga xam ne la ko moom la ko moom la ko moom la ko yàlla defal moo tax mu ne xalaba li aadaa'i qabla zuhurihim nee na wa min ashrari xaybati an allaha manna alay bi sabi karamatin mujisaati li rasulillahi salaa sallam nee na bokk na ci secret yi ma yàlla may ci tukki xam ne maanaam mujjiza sa yónnent bi maanaam mujjiza yi nga xam ne dafa desoon jamono te yónnent bi moom ko te mu rafaatale woon ma ko nga xam ne boo ma ñëwee maa koy wane mu bokk ci yi tax lislaam doon dëgg li tax yónnent bi wut ak ñëpp nga xam ne karaama la tudd ci man waaye ci mujjizaat yónnent bi la bokk loolu juróom-ñaar yooyu bokk na ci bu bu ëllëgee baaha wa baaha rasulullahi kullal anbiya bi xurbati ëllëg Sëriñ Tuubaa yónnent bi de bu mboolo yëpp dajale ya yónnent yëpp daje seen mbooloo nee na yonent mooy taxaw mboolem yonent yëpp ak seen mbooloo kenn ku nekk nga am ci ka yéene ka gën a yéeme ci saw xeet nga wane ko nee na bu boobaa yonent bi dina taxaw jàpp ci sama loxo yëkkati ko ci kaw wane xeet yëpp yonent yëpp ne na ala ci yéen ku am ku mel nii kenn du tontu kenn du ko am te loolu lu bare bari la bokk na ci nag bi may mujje te mu gàtt xéewal yi ñoom sëñ Seex Ummi am kaat kaat yi jasneer yi états yi loolu taalibe yi léegi dañoo tàmbali naan sëriñ si nangam loolu laa wax ne leen gis ngeen loolu yàlla xam ne li ñoom sëñ see om bi demuñ bay maanaam loolu sax dama xamul mu ko mën a waxee maanaam def talib or li feeg àggagun ci ñoom di jaar ci talib or maanaam jëf yi dara dafa tàmbalee tàmbaleegul maanaam taalibe yi buñ dof buñ dof maanaam sëñ Tuubaa xéewal yi des ci àdduna téye na ko ci loxoom maanaam waxuma la si sëñ si om bi ñoom waaye ñun ñi di tali bi sëñ Tuubaa laa la wax dama ne la ñun dañoo war suñ suñ buntu kër sax ñu tali ko or tali or laa la wax waxuma la danga daan di ay kaat kaat naan sëriñ si alal jeeg sëriñ si léegi nangam loolu dafa dafa maanaam li des ci àddina sëñ Tuubaa téye na ko te waxuma ko waxee daanukat waxuma waxee daanukat de lu leer laa wax kere bi nga xamee ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dem na ci tukki bi bokk na ci li ko yàlla may bokk na ci li ko yàlla may faazat xilaami wa midaadi wal jasad muxjila midfain wa sayfin wa asad bokk na ci loo xam jënd jënn jëmm amu ko nee na yàlla may na ma samay xalima sama daa sama jëmmi yaram bi yaram bi ma doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne fu nam nattu jam na téeméeri nattu ak juróom fukki natt ak lu teg nattu bu ne faagaagal na am mbooloo laa waxuma la kenn de faagaagal na mbooloo lu ci ne jëmm jooju mu doon liggéeyee maanaam dafa mujj yàgg jëmm jooju li ci aju ci war ma ak ak ak ak xéewal dafa mujj yàgg dafa nekk ab lessee fu lu baax nekkati ci ko àddina ji dafa dafa dafa bëgg a yow tamponné ci kaw jëmm jooju ma mujjoon moo moo tax mu mujj ne karramani fii mawdii wa baladi mukarramun bil amni safa xaladi lépp luy teraanga ak sécurité yàlla def na ko sama jëmm jëmm ji fu ma nekkati foofu la fa la loola jëm ba nekkee gàddaar yi yëf ya fekk fa ba mu nekkee ci yéen fu mu nekk mu yëf ya fekk ko fa daa mu jàgg tubaab yi xam ne li des ci àddina xéewali àddina yi tàq na ci jëmmi sëñ Tuubaa ji restauration yi njëriñam sëñ Fallou Galassine déglu lu baax li ma lay wax résidence surveillée njëreem dafa am benn labbe bu ne ko waxtu waxtuwaa bi ne leen du ku ñuy faat du ku ñuy jéemal mënal ko dara waaye yàgg yàgg dana fi mas a jógee ndax yonent yi sax jóge nañ fi dem leen ngeen surveiller ko saa yu fi koor bi mooy jëmm ju tedd joo ñu mu doon liggéeyal yàlla yàlla niinal na ko xéewal mel na noo xam ne fu fu ngeen fexe bam ba mu nekk fa li baax ci àdduna fa la mujj loolu moo tax Cheikh Ahmadou Moustapha Sëñ Tuubaa woo ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko bu ngeen fexee ba ma génn seen loxo lu ngeen tàmm dutu eggati allahu akbar Cheikh Moustapha mooy mooy mooy eh, waay Cheikh Moustapha kenn xamul lu mu doon billahi bu tudd toon tubaab yi gis nga fi nii fii nii des na tuuti adduna sëpp fi lañ jam wallahi alazim laa la wax dama ne leen taalibe yi yéen yéen laax dama ne leen sëti Sëriñ Tuubaa yi dama leen a jëlale ñoom dama a jëlale la wax dama ne Sëriñ Tuubaa nee na taabat nufuus man taallaqu biya dunya wa uxra daaka fadlu rabbiya li des ci addina taalibi bi Sëriñ Tuubaa xolam day gën di sedd ba li des ci àddina tukki magal gu jot tubaab yi maanaam tubaab yi dañuy gën a mokk di gën a indi xéwal yi di ko jox Sëriñ Tuubaa taalibi dañuy gën a am fierté ba àddina tukki laal wax fierté taalibi yi tàmbali na dakk mukk magal gi ci lay jeexale contrat bi fii la ko sëriñ bi signé woon liggéey Mawaahibu Laahi Tatanaha Mawaahibu Laahi Tatanaha nag amul fu mu yem Mawaahibu Laahi Tatanaha amul fu mu yem fii la ko liggéeyee ba may ko ko mu dem nag firnde lay ko ba kenn dut ko mën a weddi mu ànd ak moom ba ñibbisiwaat njaareem toog fi ba mu soob ko ba boromam yëkkati ko yóbbu ko fa mu ko bëgg a yóbbu Cheikh Moustapha def ci njàmbaar bañ andi ko Tuubaa mu tëdd fi maanaam lépp àgg na dara di sutut Serigne Touba def na fi ñeenti weer laataa mu fi génnee dem ci yoonu géej gi. fukki fan ci weeru août atum 1895 moo dëppoo nag 18 safar 1313 di bës bi nga xam ne moom la ñuy amal màggal Touba. su fekkonte ne màggal gi dañ koy jàpp ci atum nasaraan si kon 10 août bi mooy nekk bësu màggal Touba waaye nag fukki fan ak juróom-ñett yi ci safar atum 1313 ci atu gàddaay gi moom lañ jàpp bés boobu nga xam ne yoonu murit duñ ko fàtte mukk li qaada ahlu badrinil usuuda man zaxzaxu lwaasiya walxasuuda yaquudu li xaysu akunu allahu tabsira laa ilaha illa allahu